Touré nuyu naa la. fay naa la Mariama. keroog uh, ci àjjuma gi waa Kewlu Info ak waa Dakar Actu ñoo yëg leen doon ni Karim Wade day dellu siwaat waaye nag bi doon fii ci Sénégal ci Guinée lay doon lan ngeen ci déggaat. waaw euh, information ñibbisi Karim Wade bi dafa di information boo xam ne dafa nekk ci ci ci dans le circuit comme niñ ñu koy waxee dafa am ay ñenn nit lañ ko wax. parce que boobu ak léegi bi fii doomu président Abdoulaye Wade génnee kaso ñu koy fàttali lañ ko yóbbu woon Qatar boobu ak léegi euh, pratiquement génnul Qatar biir Qatar rek la tos ku mu mënti waxal xibaar téléphone WhatsApp la doon jokkoo ak mbooloo mii la doon jokkoo ak ñi nga xam ne ñoo di ay supporters am ba ñu toog mois de mars bii di jeex ab nit contacté nu ñun waa Kéwoulo ne nu ndagam yéen investigation ngi ni liggéey. dama len bëgg jox ben matière à investiguer len lo xamné bu ngeen ci xousé mën ngeen ci fekk dara dégg na ni doomu Abdoulaye da fay si waaye mën a ñëw Sénégal euh, dafa mu dëkk muy ñu si manam muy guiné bimu ñuko waxé nak guiné nag Guinée Bissau lañ ko tegoon ñun demoon nañu Guinée Bissau installé wu fa pendant presque lu mat ay fukki fan suni euh, ci suñu biiru gëstu la découvrir né ndéke du Guinée Bissau waaye guiné Conakry la parce que ñi ci liggéey ñu ci bare Bissau lañ doon. profité parce que ak trouble bi fa nekk ak euh, manque de contrôle bi nga xamné état bi parce que bu fatini ni Bissau toog nañu lu yàgg de janvier ba mois de avril avril bi lañu doga am gouvernement donc loolu neexoon way mënon naka fa def ñu gestu ñu daal découvrir ni euh, Karim Wade euh, de afek euh avancer nañu ci lu bari ci préparatif yi waye Guinée bi Conakry la wara wacc ki ko naroon na dalal fofu modi di Fofana Kassori Fofana mu actuel premier ministre bu Guinée Bissau bu Guinée Conakry parce que bu ñuy fàttali euh, Kassory dafa nekkoon opposant ci Alpha Condé te bokkoon na ci élection présidentielle yii nu weesu waaye nekkul moom moo ëpp doole ci politicien yu yu yu Guinée Il li lay won encore Sénégal manque de connaissance bi ñuy am ci relation internationale manque de connaissances bi ñuy am ci wàllum dëkk yu tax na ba Kassory Fofana ndajeem ak Abdoulaye Wade mu ngi nekk ci euh, ci atum ay 2008 2009 booba am na kenn ku tudd El Hadj Boubacar euh, Kane su ma fàttewulee moom moo demoon wo moom conseiller conseiller la woon ci Abdoulaye Wade mais moom euh, doomu Guinée la mais conseiller spécial la ci Abdoulaye Wade ñenn ci ay param Guinée na ñenn Sénégalais kooku moo gëm la woon ni Abdoulaye Wade ne waa ji moom mënun a Qui dit président Lassana Conté donc chance su Sénégal pour que ñu am Guinée nañu war a jokkoo ak waa pendant longtemps Abdoulaye Wade jëloon na ci xaalisu Sénégal di ko jox kaso yi Fofana boobu xaritoo ak moom di ko dalal fii ci hôtel euh, Méridien lu mu soxlawoon rek Abdoulaye Wade nekkoon na ci parce que dafa xalaat ni kooku la mën a kooku mu mën a diriger Guinée te moom soxla na ku nekk Guinée mu mën la contrôler di la fàttali ni Abdoulaye Wade moom. Qui donne président bu Guinée mu Lassana Conté Mostu juboo ak Abdoulaye Wade ndaxte Lassana Conté it xarit la woon ci Abdou Diouf le fait que Abdoulaye Wade gagne Abdou Diouf mu téyeel Abdoulaye Wade mere boobu doon la jox une anecdote benn nettali boo xam ne xewoon na fa mooy boobu ñu doon fêté cinquantenaire wu indépendance du Guinée Abdoulaye Wade bëggoon dem ci fête ba pratiquement ci président africain ya fa nekkoon Abdoulaye Wade moom moom rek moo ci génne xaalis lu toll 500 millions de francs CFA demi milliard mu may ko kii di Lassana Conté pour nous préparer fête de l'indépendance bi 50 cinquantenaire wu Guinée parce que vous fàtte ni Guinée mu ngi mu am indépendance am en 1958 donc bu ñu nekkee en 2000 euh, en 2008 dañuy daal di def seen ligne seen Vous voyez gis nga bi président Abdoulaye Wade ñëwee foofu jox nañu président yëpp fu ñu sauf Abdoulaye Wade amul sax chaise bu mu toog président malien. ba fa nekkoon muy euh, euh, Toumani ture moom mu jóg fi mu doon toog mu jël chaise am jox Abdoulaye Wade comme ça Conté obligé yëkkati keneen pour président malien bi toog pour wan ñàkk fulaal bi bi ko bi ñu ko ñàkkalee fulla foofu te ñàkk faale bi ñu ko faalewul beneen anecdote président Abdoulaye wat jóge na Sénégal muy dem def benn escale Conakry bi avion bi wàccee président Conté bi mu xamee ne Abdoulaye Wade jóg mu ngi fii ci euh, dëkk bi Conakry dafa jël otoom mu dem ci dëkkam bàyyi premier ministre am muy Lassana Kouyaté mu dem teeru Abdoulaye Wade bi Lassana Kouyaté ñëwee mu ne Abdoulaye waat président Conté dafa am urgence moo taxoon mu dem euh, dëkk wa ambassadeur bu Sénégal ba fa nekkoon muy euh, monsieur Nelson mu ne ko waxul dëkk daf la bañ a donc aide boobu moo nekkoon diggante ak Abdoulaye ak président Conté taxoon mu buggoon jàppale kenn koo xam ne moo war a wuutu Conté noonu la xamante ak euh, waa ji di foofu Fofana. kasso ni ñu présenter ko comme ni ma la nga waxé ñu may ko privilège yu bari ba benn ci auto, yi nga xamné moy auto oto yu oto voiture de luxe yi ñu daan wax Sénégal ci aussi ñu commander ba oto yi après dañ ko don sédd seen biir Abdoulaye jël na benn Mercedes S350 daal di ko may Kassory Fofana kasso Kassory Fofana bobu tay mo ñu nek premier ministre mu ku njabotu Abdoulaye war ne dafa wara dimbali Karim jox ko lance de li wax rampe de lancement c'est-à-dire mu may ko base arrière pour mu mën a continuer activité politique am waaye nit ñi xalaatoon nañu ni kaso yi Fofana mi nga xam ne mu ngi doog a nekk premier ministre matagul sax un mois warul mën a ñeme def lu mel noonu te mu xam ne Karim Wade problème Karim Wade fu mu tollu Sénégal mënu la invité kooku mu ñëw def Guinée base arrière fekk àndu ci ak président Alpha Condé. ca naka noonu waxtaan nañu ak nit yu bari ñi nga xam ne ay xarit lañu ci président Alpha Condé ñu xamal ñu ni lii Kassory Fofana def. daf ko def ci euh, ci décision wu boppam président bi amu ci lenn lu mu ci laal la koy waral ñu ne président Alpha Condé warta mëna a xalaat ne dafay jappalé ki di Karim Wade ndaxte mom ak bayu Karim Wade demeewuñu mustu djubo ak Abdoulaye Wade surtout ces derniers temps waye bu ñuy ci ginnaaw Alpha Condé boobu euh, ñu gappé won ko ci tentative de coup d'état bañ duggal won ko ci kaso président Abdoulaye Wade bobu mu nekkoon avocat moom rek moko taxawu taxaw bu dëgër ba bu ñu koy génnee kaso fii dakaar lañ ko indi mais xam nga intérêt wu politiciens yi dafay nekk tey nit day doon sa xarit suba mu doon sa noon noonoo bi nekk diggante Alpha Condé tey ak euh, Abdoulaye Wade tax na Alpha Condé ci boppam ubbi na gémmiñam ne nit ñi ne xanaa ñii dañu xamul sama relation ak waa kër Abdoulaye Wade waaye ñeneen encore ñi nga xam ne xam nañu Alpha Condé nee nañ ma Alpha Condé mbañ a sawri nit la koo xam ne bu jàppee dara du bàyyi te it tey moom. amul lenn lu mu bëggee Macky Sall donc mbañeel bu mu am mbañeel bu mu am ci Macky Sall tey mun na ko puus sax ba mu ba mu ba mu jokkoo ak kenn koo xam ne sax même bu dee nit ku bon la pour mu ànd ak moom xeex Macky donc loolu mooy situation ci Karim Wade lii moo waral mu mooy lii la xam ci préparation ak ci arrivé am foofu ci Conakry. mun nañ xam Karim lan moo ko fi tere directement. waaw xam nga Karim Wade génnam kaso dafa am loo xam ne waxtaan la bi mu waxtaan ak Macky Sall mu di benn protocole d'accord bu ñuy wax protocole de Doha protocole bi nga xam ne condition yi nga xam ne taxu na Macky mu bàyyi Karim Wade mu génn réew mi moo di dootul tegati tànkam fii te dootul waxte ci politiku Sénégal loolu moo loolu moom la ñu signé Karim ci loolu la d'accord bu lay wax ni Karim d'accord ci kii ne loolu la mooy la vérité Karim dafa trans li ñuy euh, a il a transi transigé transaction la def waxtaan ak ñoom. dafay bàyyi lépp lu jëm ci waxu politique moo tax mu dem léegi nag Qatar googu mu nekk ñooñu dañu fas yéene Karim na respecté condition yi nga xam ne moom la waxee woon moo tax ñu génnee ko ci kaso bi mooy dafay maandu lépp li nga xam ne ci affaire politique au Sénégal la waaye gis na nañu temps yee ci ginnaaw Karim doon na ci artu di ci wax taxoon ñooñu waa Qatar ñu wax ko ne il faut mu arrêté bu fekkee ne dafa bëgg na toog fii parce que Karim dafa am benn problème yoo xam ne sénégalais duñ ko wax Karim Wade mënut a dem Europe français la mais mënut a France. mënut ta dem France te mënut a dem benn dëkk occidental parce que dossiers yu bare bare bare yu compliqué ñoo ko nekk di ko xaar Europe ay dossiers yoo xam ne ay transaction ay malversation financière lan yoo xam ne daf daf ko séq ak ay nit am na si nit yoo xam ne ñenn nit ñi ñu ngi tey ñu dugal leen ci euh, mise en examen parce que France euh, dëkku dëkku occidentaux yi nekkul comme Sénégal nga xam ne nit ki da nga koy soupçonné rek nga jàpp ko dugal ko si kaso déedéet ñi en examen de temps ñuy tey jii bu tegoon tànkam ay France wala yooyu automatiquement dañ koy mën nañ ko sax bloquer foofu tey ko du mën a bouger le temps ñoom ñu continuer seen enquête comme nuñ def euh, kii di Lamine Diack ci dans le cadre dossier bi nga xam ne mooy euh, dopage bi ci IAF. donc lu mel noonu moo ko fay xaar moo tax malgré que papam ak yaayam nekk ay màgget malgré que ay doomam nekk ay xale yu tuuti nekk France Karim mënul teg dem tànkam foofu Karim mënul tamit teg tànkam fii ci Sénégal

bokul ak li Abdoulaye Wade wax parce que Karim Wade xam nga li ñu wax créé daf ko condamné né dafa wara fay 135 milliards la wara fay Sénégal légui créé bobu loi dafa né bu fekkee ne nit ki dañ ko topé pour mu fay xaliss bu bare bu ko fayulee dañuy am euh, exécution provisoire dañuy dañuy dem dañuy imposer euh, contrainte par corps contrainte par corps moy bu fayulee xaliss bi dañ ko japp dougal ko ci kasso bi.

mais gouvernement bi dafa déclenché état Sénégal dafa déclenché procédure bi yónnee huissier ñu dem kër Karim Wade di ko fa c'est sûr Karim nekul Sénégal bu ñu ñëwé foofu duñ ko fa fekk bu ñu ñëw ñi ne dañuy seet lan ak lan ak lan la Karim wad moom ci kër Abdoulaye wad xam dañ leen naan Karim moomu fi dara bu boobaa huissier de justice bi dafay rendre li nga xam ne moom la ñuy wax euh, procès verbal de carence procès verbal de carence mooy seet naa fi yëpp. amul dara loo xam ne Karim Wade moo ko moom ñu bind ko ci kayit bu huissier bi indi loolu ñëw jox ko jox ko euh, avocat plaignant yi ñoom dossier moom la ñuy jël rek yóbbu ko ci procureur ne kii ñu war a fay am nañu contrainte par corps mais mënul fay ba pare amul dara loo xam ne dafa nekk ci turam loo xam ne mën nañ ko jël dossier boobu rek doy na boole ci état Sénégal parce que boo amee contrainte par corps contre quelqu'un il faut nga fay lu mat à peu près loi Sénégal dafa tek lu mat ay 6000 francs CFA par exemple bu naree tik nit ki pendant un an tant que fay la sa xaliss pendant un an ñu tek ko ci kasso bi donc il faut nga am 6000 francs CFA bo xam ne da 6000 multiplié par 12 gouvernement bi dem fay caution bobu tok nak di xaar loolu moy tay Karim wad bu ñëw fi pour mu mëna a ci si il faut mu fay 135 milliards bu ko mënulé fay directement ci kasso bi la jëm loolu mo waral ñu yónnee huissier si kër gi c'est pour que ñu constater

outil procès pour ñu mën légaliser un procès verbal de carence bobu pour ñu mën a teg dossier boo xam Karim bu tegee tankam fi Sénégal directement ci kasso bi la jëm lolu mom moy tonto sa laaj bi lolu mo waral Karim Wade du ñu Sénégal donc ñi kay xaar pour 2018 xam 2019 pour présidentielle bu yabo ñu outil ci beneen candidat comme waxoon naa leen koo ci gannaaw Karim Wade du bokk ci élection yi ñu jëm beneen affaire bi xam nga wa PDS néwon nañu danañ def sen congrès mois de juin mois de juin bi lañuy def congrès mu ne de mu neex mois mu nakari leen mois de candidat temps rek maa ngi waxtaan ak ñoo xam ne ñu jege woon nañu euh, Abdoulaye de bëggoon naa leen laaj sax pour ñu ci sujet mais nañ ma tant que mois de juin jeexut ñoom duñu wax duñu yëy lu jëm ci Abdoulaye parce que dañu Sénégal euh, congrès dañu mois de juin mois de juin bi lay donc mois de juin bi tey de ñu ngi ci le 5 ci mois de juin dafa naan li ci des bareetul mais li wóor ba wóor mooy am na procédure bi nga xam gaay lancé nañ ko Karim Wade bu ñëwee say Sénégal directement ci kaso ba jëm Karim Wade mënul dem lu man Europe wala Amérique parce que amna na yeneen procédure yo xam dañ ko ubbi fofu ci mom lenn mom la mëna amé tay moy mu dess Qatar goga wala dëkk bu melni ni Guinée nga xam ne Guinée ku ko xam xam ne baña exécuter ay mandat d'arrêt yu internationaux